para poder Kinet nekk principale entreprise yu yëngu ci wàllu ko jënd jaay direct te basé wu fi nga xamante ni moo di Asie mën a tax li nga xamante ni askan bu yeewu sa dëkk ba ñuy dem mën a bénéficier wu ci li nga xamante ni moo di vaste de gamme produit ci wàllu santé bien-être ak style de vie mais tamit Kinet nekk modèle d'affaires bi nga xamante ni dina tax lu toll ci millions yi entrepreneur soxe ko ci plus de cent pays ci àdduna wër nga képp bu ñu sukkandikoo ci Birame Fall nekk directeur Afrique subsaharienne de CNET si jàkkaarloo gi mu doon jàkkaar taskati xibaar yi daal nee na noppi na ngir fexee li nga xamante ni moo di yeesal euh, dundu askan bi rawat na si wàllu ko jënd ak jaay rawat na li nga xamante ni moo di si wàllu ko tamit euh, commerce en ligne. waaw mbokk yi maa ngi maa ngi gërëm ku nekk ci turam ak santam di leen euh, di leen sant ci ànd bi ngeen ànd ak ñun tey ci suba si wuy si bi ngeen ñu wuy si. ci suñu wootee bi nga xam ni dañ ko jagleel euh, ndaw ñi jagleel ko ñëpp ngir ñu ñëw seet euh, kër gi tudd QNET ci lan lay yëngu lu muy def lu muy jaay ak lu ko tax a jóg moo taxoon ñu woote tey donc ñu ngi leen di sant ci bi ngeen ñëwee yéen itam ndax ngeen mën a tasaare wasaare euh, li ñu ngeen fi jot a gisal gis seen bopp ak ñun itam li ñu jot a waxanteeg yéen ci jokkonte bu gàtt QNET nag kërum lëkkaloo rek lëkkaloo ànd yëngu ci koom yëngu ci koom ku nekk am astut loo fort mais ci ngor ci nangu liggéey ci Pastef am nañu nag li ñuy woowee catalogue li tubaab di woowee catalogue muy muy ab téere boo xam ni lépp lu ñuy jaay nataal yaa ngi ca biir njëg li nag moom doo ko xam boo leen dikkul si ñun léegi QNET ñu muy doxee QNET kër la goo xam ne ma nga soqeekoo fële ci asi sore lool li ma leen koy mën a misaalee mooy yéen bu min wi jotee fii ngeen bëgg tëddi ñoom ñu ngay jóg ca huit heures du matin di liggéey kon xam ngeen ni loolu war na sori fa mbir mi doxee jóge fa la soqeekoo jóge fa law foofu ci seen ay dëkk dem Europe ñëw fii si ñun ñu ci sant yàlla nan lañ ciy duggee ak nu muy doxee QNET li muy jaay du ko teg ci benn bërëb ku romb xool waxaale jënd déedéet QNET li ma waxoon sànq mooy këru lëkkaloo nit ngay taseel mbaa sa mbokk mbaa sa soppe mbaa sa am di jàmm mu wax la waxu CUNED faram fàccee la li ñuy liggéey lan la wax la lan nga ca mën a jëlee ndax mag du fecc yàlla naa de du dëgg man bu ma la jëloon tey jii dugal la ci biir dama naan la mbir maa ngi nii yii mën nga ko jënd ci yi ñu def ci téere bi mën ko jëriñool sa bopp mbaa sa njaboot mbaa yéen ñëpp ngeen àndandoo jëriñoo am na yu ñuy naan muy. yëngu ci wàllu yërgu-yaram am na mont yu yanj macha allah yooyu mën a jëndal soxna yi mbaa soxna yi ngeen jëndal ko seeni i sëriñ am na uh, mbirum njàng moo xam ni wax dëgg yàlla dafa doy na waar ndax fi nga toog ngay toog taxaw ci kanamu ordinateur ñu lay jàngal xam-xam boo xam ni boo ca paree du wutee lenn ak ki nga xam ni day dem di xëy bés bu nekk di jàngee di dellu si ak yeneen yeneen yoo xam ne xëy na xajul fii nii yow nag bu ñu la woowee li nga mën a def mooy jënd jëriñoo wante am na beneen wàll ci biir mbir mi moo dañ lay sant yow itam nanu la woowee ba waxanteeg yow ba gindi la ci mbir mi yee la ci mbir mi nga def noonu ak ñeneen ci njub ci njek ak ci teranga ba nga xam ni mën ngeen lëkkaloo ànd doon benn ñaar maa fukk macha allah mbaa fu mënti yem ci àddina ku ne di liggéey soo leen àndee di liggéey dimbale QNET mu jaay njaay mu takku ñu wàññil leen ci yéen seen wàll ba mu mat sëkk teg ko ci seen diggu xanaa kon buñ la nee boo jaayee nu fay la nga am genn nit dong muy jaayandoo ak yow boo xëyee sa xel dem ci nga wuti fukki nit ñuy en ngeen ànd di jaay xanaa doo booboo gën ci yow kon loolu la ñuy wooyee réseau mooy lëkkaloo àndandoo bare ànd di jaay mais njaay mu jub amul nax amul wor amul naka suñu sudul noonu amul wax lu amul produit bi lii lay jar lii lay def fii la ñu ko jëlee lii mooy melokaana bu nit ñëwee na la man kat yàlla daf ma teg natt dama am feebar boo xam ne mënu ma cee te yow doo docteur te li la wax ci produit bi lu leer la nga wëlbati ko dem ne ah bëgg jaay dong jëndal bii dana la faj fen nga ñun fen ñu kiinet wor nga ñun wor ñu kiinet nax nga ñun naxuñu QNET ndax lépp lu ñuy def dañu ko bind ba mu leer naññ te bu nu nit dugg see tamit ni waxtaan ak moom dañuy wax ak moom lu leer naññ lu dëgg kon nag mbirum lëkkaloo la jaay ay euh, doomu koom yoo xam ni wax dëgg yàlla dafa amal njëriñ nit ñi ci seen dund wax si do ba pare nag am lu bari lu muy def ci seen poos neem tuuti la lu dëgg loolu mooy QNET loolu la QNET di dox li ñu tax a ñëw fii nag tey mooy dañu bëggoon ñëw ci genn bërëb woo ñëpp ñu ñëw toog ñu mën a jokkalante ak ñoom wax ak ñoom ah faram-fàccee leen li ñuy def te nag wolof Njaay nee na wéet di gis bokk ci ndax bu ma tolloo fële di la wax a yow téléphone naan la am naa mbir moo xam ni bés boo ko jëlee daa ci am lii wala daa ci am lële naam sax xëy na man dëgg rek laay wax wante boo yegg si woon ba ma wan la ko ba nga teg sa bët ba nga gis yeneen daa xam ñun ñu toll ñooy kan ak fu ñu jëm fan la. ba xëy na bokk sa xel mën a dal nga mën a nangu. mel ni tamit Kinect ba léegi tamit ubbi na ay portam jëm ci exposition gi muy amal la ba fay xamante ne moo di le 16 août fële sa place du souvenir tamit ngir fexe li nga xamante ne moo di gën a amal la contact direct ak woy jëfandikoo yi ak ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo yëngu ci wàllu ko jënd ak jaay. Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube Tawfekh Production et de suivre